naa la Pokola waaw fay bu baax maa ngi am jàmm bi ngay jógee fii ci làmb. waaw dafa am loo waneeti ci wàllu làmb. waaw waaw waaw. ci làmb lan la. ah bëgg def kom suñu samay topp samay tànk maam ak samay tànk nijaay Ama Baldé waaw di xamal loolu yëpp mënuñu ko yàllaa ñu dooleel rek moo tax ñu koy def quoi sant yàlla bu wér a wér. fan génn gu ma fa de. da yow xaroo ma ko gën a. ñemewoo loolu ñemewoo loolu. ñaanal paa bi yàlla na ko yàlla may ndam di ñaanal paa bi yàlla ko yàlla may ndam loolu laa koy ñaan non non du ma fi génnaat di ko ñaanal yàlla na ko yàlla may ndam bu baax barke yàlla foo dëkk yow foo dëkk doomu parcelle la maa ngi bul taw bul taw léegi boo jóg parcelle boo jóg parcelle boo jóg parcelle nga ne boo jóg parcelle par benn benn jeex ñoom ñëpp ñoom ah bëgg ñu bë bëriwul maa yow. yow daam yow yow daam su ngeen la mën. yow daam su ngeen la mën. asaay da ngaa xew nag. bàyyi leen foofu ñu dof dof lu. mais fa dof mais sa diggante ak Talfa gars yi ñu ngi ciy wax. Talfa rek barki sëñ Bamba Mbacke su ma seyoon tey jii ñu jox ma avance bi si stade bi. Talfa waaw. su ma sañoon jox ma avance bi tey si nga jàkkaarloo Talfa yi ngay dóor nga dóor ko dama koy dóor ba mu tëdd Talfa bari sëñ Bamba dama koy dóor ba mu tëdd munul xeex dama koy dóor ba mu tëdd boo demee nga ne ko poxalaa nee da ba mu tëdd tapet la la ñemewul bu ko bu ko bu ko bu ko booyam yi ndaw yooyu xaftalul du def tapet la bu ñëwee ba dóor ko ba mu tëdd boo demee nga waxal ma ko